salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëfe Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fallam mbokk Sénégal tey jii nag euh, ñu am sunu mbokk journaliste yi fi ñëw pour def interview ñu nara waxtaanee ci wàllu ndoxum siti ndoxum siti nag nekk na feebar bi nga xam ni. c'est une maladie dermatologique maanaam feebar la bi nga xam ni ci deru doomu aadama bi lay gën a feeñ donte ndoxum siti nag dana feeñ ci biir mais dana feeñ ci biti mën nañu wax ne soixante quinze pour cent ci ni muy manifesté woo ci der lay manifesté woo. exemple bi muy joxe pour ñi nga xamante ni nee nañu ndoxum siti dana nekk ci biir exemple jigéen bu tëw am doom ndoxum siti mën na nekk ci butitu njurukaayam maanaam ci kyste yi ci ovaire yi ci utérus bi loolu ndoxum siti mën a dem ba téye laal côté boobu am na jigéen ñi xam xamante ni dañuy am ay kyste dañu am fi buuram dañu am ñoom te loolu buñ ko seetloo ba ci biir it ndoxam siti dafay bokk ci li nga xamante ni dafay am nit ki bu amee ndoxum siti yooyu daf koy gaaw a yomb. waaw jërëjëf euh, Cheikh Babacar le types de maladi de la peau loolu boo ko déggee ci wàllu ndoxum siti yan xeetu feebar moom mooy am ci der ndax xam nga wàllu ndoxum siti ay maladi ay maladies vénériennes ay syphilis endémique la. wala yenn infection yi mën na ko indi ay lésions ak ay démangeaisons maanaam ay picc yi nga xamante ni day am ci yaramu doomu aadama ni muy manifesté woo comme ni ma ko waxee sànq dafa bari ñenn ñi ay picc la leen di jox ñenn ñi heure la leen di jox ñenn ñi seen yaram da koy ñaral ñi ci des seen yaram da koy xar bu ñu sangoo ndox mu tàng sax après mooy loolu temps sedd seen yaram bi day xar day furi day weex tànk yi day xar seen wey yi day lakk di ñuul ñenn ñi day jàpp seen bët ñi ci des ndoxum siti dina jàpp ci seen baat ci seen put ñenn jigéen ñi itam yenn produit yi nga xamante ni dafa am dafa am dafa am xeesal buñ ko laalee automatiquement nga gis seen yaram yi day am ay tache wala yenn huile suñ ko jëfandikoo automatiquement daf leen nekk li xam te ne daf leen di allergie kon nag ndoxum siti dafa nekk lu yaatu lu yaatu lu yaatu ndox la bi nga xam te ne dafay kuule wu ci diggante der bi ak sang bi ak deret ji foofu lay dox mais fu ko nekk ci nit ki mën na fa génn dafa bari ay façon moo tax tubaab yi boo ko xoolee mën na la wax plus de ay cinquante façon maladie dermatologique mais bu dee ci ñun wolof dañuy wax ndoxum siti ndax ndoxum siti bu génnee ci bopp tubaab am na nee na nu mu ko tuddee par rapport ak ñun ndoxum siti bu génnee ci tànk am na nee nu mu ko tuddee ndoxum siti bu génnee exemple euh, ni am ñoo ni euh, seen awra day à tout moment day tàng dañ koy woq day def ay xooñ à tout moment seen yaram seen yaram bi day am day day day dañ koy woq di ko woq di ko woq ñenn góor ñi dañ koy woq ba muy nàcc ba muy nàcc muy laal seen testicules yi wala mu laal awra bi wala fi ñu demee toilette ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite kon ndoxum siti nekk na li nga xamante ni feebar bi nga xamante ni feebar bu doy waar kon nag képp ki nga xamante ni yàlla boole nañoo ak yow rek ci kàttan yàlla ak baaxam ak yërmandeem après consultation dinañu mën a xefe xam sa jafe boobu nga am nan la ñu mën def ba jàppale la ci loolu incha allah. Euh, jërëjëf Cheikh Babacar li nga xamante ni moom mooy favoriser apparition wu ndoxum siti loolu moom lekk déjà bokk na ci li ci gën a fav li koy gën a favoriser yenn alimentation yi ñun nag euh, Sénégal suñuy alimentation dafa dafa gras bu mu ëpp. te ndoxum siti bëggul bëggul lu niin te ñun dëwlin la ñuy dundee sénégalais la majorité kees mburu yoo gis ñoo ngi fay jaay ndambe mayonnaise petit pois te xamuñu ni mayonnaise bi ñuy utiliser à volonté dafa nekk li nga xamante ne dafa bokk ci liy favoriser ndoxum siti soow daf koy favoriser bu baax dafay yokk ndoxum siti gerte kemb day yokk ndoxum siti cere ak meew boo ko suukaree rek automatiquement dafay favoriser ndoxum siti bu baax cere ak meew moom di ko reeree baax na wax dëgg yàlla

bu ko amul ci bopp am na ko ci yaram wala am na ko ci tànk wala am na ko ci loxo wala am na ko ci wey wala ci tànk yi wala muy xar wala nangam comme ni ma ko décrire sànq fi muy feeñ. la maladie de ndoxum siti peuvent entraîner d'autres troubles loolu moom lu mën a nekk la ndax ku xam ndoxum siti xam ni dana tere nit am doom wax naa ko sànq ci bu dee góor mën na dem ba jàpp sa ndoxu sëyukaay bu dee ci jigéen nit mën na ko tere am doom parce que ndoxum siti day rey ay ovule jigéen maanaam jigéen bu gisee règle day ovuler ovulation yooyu ndoxum siti da koy rey day tax. fécondité du mën a am nidation du mën a am doom pour mu taxaw day nekk luy jafe euh, ñetteelu point ba day jur ay kyste ndoxam siti mooy favoriser kyste mooy favoriser fibrome mooy favoriser miom te day tëj ay trompe bouché kon jigéen ñu bëri te nañu am doom li tax ñu taw am doom ndoxum siti bokk na ci quatre-vingt-dix pour cent ci cas yi nga xamante ni moo ci nekk te itam xam nga nga nekk jigéen war a rafet yàlla dogal sa kanam am ay tache sa kanam am ay ër xam nga loo saabu boo sangoo mu allergie la diw boo diwoo mu yàq sa yaram te ndoxum siti moo ko waral te fekk ni am na consultation yoo doon def wala traitement yoo doon jël ci benn un mois yàlla dimbalee la ndoxum siti boobu mën a dañ loolu am na solo euh, bu dee xale itim xale itim loolu itim dafa nekk li xam te dafay feeñ ci ñoom ndax ndoxum siti amul paa amul mère amul xale amul jigéen bu toll ci jur amul góor bu am soxna moom ndoxum siti moom ñëpp la mën a jàpp xale bi juddu tey sax dañuy gis yow ay liir yi ñuy indi yi nga xam te dañuy judd rek ndoxum siti commencé leen attaqué ndax loolu dafay fekk ni dañ ko doon ci seeni i wayjur ki nga xamante ni ndayam wala baayam wala ñaa ndayam ak baayam yëpp am na ndoxum siti wala maamam ndax ndoxum siti toppub sët la moom sa maam sax da koy am mu topp la topp sa ndey topp sa baay ba ci say sët da lay topp ndoxum siti kon nekk na li xam te ne lu day waar la waaw Babacar jërëjëf waaw dañuy traité bu baax euh, feebaru ndoxum siti dañ koy traité fii ci Géejawaay arrêt Dubales kër Serigne Bara Fall am nañu ay traitement yoo xamante ni da koy faj ci biir garab yooyu naan am nañu ay traitement yoo xam ni da koy faj ci biti mooy pommade bi nga xamante ni moom ngay diwoo fépp fu ndoxum siti génn sa yaram su génnee sa tànk su génnee sa ginnaaw su génnee ci sa biir su génnee ci sa dënn bu génnee ci sa loos bu génnee ci sa bopp yooyu am nañ traitement bi xam ni externe la am nañu traitement interne kon ndoxum siti moom nekk na feebar bi nga xamante ni wax dëgg yàlla dañ koy faj fii ci lu gaaw traitement bi ça dure juste un mois traitement bi def nañ ci xewal kuñ ci yàlla boole rek incha allahu rabbi suñu yàlla booleeg yow daañu la mën a jàppale ci loolu traitement bi en euh, ci kàttanu yàlla un mois yàlla mën na la dimbale incha allahu rabbi am na ay différente types de traitement loolu moom mi ngi am selon bu ñu defee consultation xool ba xam hmm, niveau bi nga xamante ni ndoxum siti bi avancé na ko sa yaram ñaata temps la am ci yow euh, lan la la jot a yàqal ci diagnostic bi dañuy gis yooyu yëpp xam ni ndax daf la tere am doom bu dee góor wala bu dee jigéen xam ndax yow daf la tere liggéey xam ndax daf la tere dox ndax ndoxum siti dana dem ba tere nit ki dox ndax ñi nga xamante ne dañuy am problème mu sciatique ñooñu buñ ko seetloo ba ci biir dañuy am problème mu ndoxum siti kon ndoxum siti doy na waar. kon nag loolu yëpp aw diagnostic buñ ko gisee ñu mën a xam yan dif yan yan xeetu traitement la ñu am fii ban moo adéquat ak sa yaram ban nañ la mën a jox et tout ndax am na ñu nekk bitim réew soxla ko te ñëpp xam nañu ni avion ndox du fa jaar. te traitement ndoxum siti yi sax am na ci li nga xamante ni ndox la am na ci li nga xamante ni poudre la am na ci li nga xamante ni pommade la ça dépend ci nit ki. fan nañu mën a jaar ak moom dax garab yi bëri na trop fii ci cabinet Univers Bio bu ko defee comme ni ma koy waxee rek man maay Serigne Bara Fall man maay def consultation yi posé diagnostic yi su ma gisee li nga xamante ni moom moo gën ci sa yaram rek ñu mën la ci jàppale ba loolu tàggoo ak yow ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem pour conclure wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi wax dëgg yàlla traitement ndoxum siti moom suñu borom am na lum ñu ci dénk yàlla mooy maye ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu ba képp ki nga xamante ni soxla na traitement yi rek mën nañu contacter ak foo mën a nekk daañu xafe noo si jotee suñu plateforme de livraison yi ñoo ngi fi foo mën a nekk ci addina ak foo mën nekk ci Dakar ak foo mënti nekk ci Sénégal collaborer ak suñuy secrétaire wax dëgg yàlla ñu am yar lañu ñu am dal lañu ñu am taalibe lañu ñu ñu formé lañ ci kàttan yàlla collaborer leen ak ñoom ñu wax leen naka ak nan lay demee incha allahu rabbi di ngeen ci jot te képp kuñ ci yàlla boole rek sa ndoxum siti ak fu mu mën a ci sa yaram wax ñu ko wax ñu ni nga ko bëggee ñu defal la ko ni nga ko bëggee incha allahu rabbi ci kàttan yàlla ak baaxam a yërmandeem numéro bi ngeen ñu mën jotee mooy 77 169 45 45 77 169 45 45 wala ci beneen bu mu jokkoo bi di 77 160 93 93 77 160 93 93 woote leen pour jot sunuy ndaw pour am rendez-vous wala pour jot ci garab yi incha allah jërë ngeen jëf yàlla na yàlla barkeel te wéral cër yi ci kàttanu a ak baaxama yërmandeem amiin Serigne Touba.